acteur politique yi engagé wu ci lii di dialogue politique bi nga xam ne njiitu réew mi Macky Sall daal dina ko woote niki démb ci altine ji yemoon ak fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin dina ñu daje ngir waxtaane lu ñeel candidat yi nar a dem ci jongante njiitu réew yu atum 2024 gannaaw ba ñu taxawee nag ci lu gën a soxal wàllum modification jëm ci article L28 naka noonu ne itam wax ci wàllum article L29 ak lii di article l bu code électoral waaye itam daal dinañu waxtaane ci lu soxal wàllum candidature Macky Sall ñeel yooyu les élections gannaaw ay waxtu yu bëri yoo xam ne ñoom représentants yi daal dinañu ko waxtaane seen biir nañu jàpp ne kon boobule waxtaan dinañu ko daal di wëyal niki tey ci talaata ji gannaaw rek ba ñu bëggee fexe ba traité lu jëm ci kaawu Karim Meïssa Wade ak Khalifa Babacar Sall waaye dina ñu waxaale ci lu ñeel ñetteelu mandat bi ñu bëri jàpp ne njiitu réew mi Macky Sall daf ko bëgg jamono ji te nekkul benn yoon loo xam ne chartum réew mi daal dina ko mayee dialogue politique boobee nga xam ne moom njiitu réew mi Macky Sall sax moo ko daal di woote ngir ñu mën a fexe ba dal ñu jàpp ne rek mën nañu ne ñu ngi ci sàndi tàccu bi gannaaw bi nga xamee ne ñu ngi doon amal seen juróomeelu séance de travail ci teewaayu contrôleur général bu police nationale di Tanor Thiendella Fall mi nga xam ne sax mooy directeur général bi ñu dénk wàllum élection yi niki démb ñoom acteur politique yi nga xam ne dañoo daal di engagé wu ci jamono joj coalition bi gën a rëy ci opposition bi mu di yeewi askan wi ak plateforme bu bees bii di f ñoom dañoo daal di won ginnaaw lu jëm ci wàllum dialogue boobee soxal rek présidentiel yu 2024 leneen lu ñu mën ci boobu lekk ndaje moo di waxtaan yooye nga xam ne kon ñu ngi ko doon amal gis na ñu ne daal ab déggoo gën naa am ci biir ak itam dégloo mu wute lool ak ni ñu doon faral di amalee dialogue bi fii ci réewum Sénégal gannaaw nag ay waxtu yu bëri yoo xam ne ñoom représentants yi daal di nañu ko seq ci seenu ko biir ñu joxante waat ni ki dig daje tey ci talaata ji ngir mën a wéyal yooyu lekk waxtaan ngir mën a fexe rek bakar Karim Wade ak Khalifa Sall bokk ci présidentielle yi waaye it réew mi Macky Sall bañ a bokk kon ci yooyu lekk élection lu soxal wàllum modification jëm ci lii di article L29 ak L30 bu code électoral bi nga xam ne moo xañ Karim Wade ak Khalifa Babacar Sall jamono ji ngir ñu mën a bokk ci élection njiitu réew yi ñu jëm lu soxal itam wàllum amnistie daal di nañu ko fa waxtaane ca ba nga xamee ne ñi teewal Parti démocratique sénégalais di PDS si ñoom la ñu gën di saaku jamono ji daal moo dinañu amalaat ab càmbar ñeel procès bu Karim sa Wade ci njeextalu ko waxtaan nag la jàpp daal moo di lu soxal wàllum modification jëm trente bu code électoral donte dina dinañu ko waxtaanee waaye la ñu gën a tënku jamono ji daal mooy lu ñeel alinéa trois bi nga xam ne dafay wax ci wàllum réintégration jëm ci nit ñi nga xam ne kon dañu leen daal di raje ci liste électorale yi gannaaw ab condamnation bu tegu seen kaw leneen lu nu waxtaanee mooy lu ñeel wàllum réhabilitation ak it mesure d'amnistie yi nga xam ne kon dafa viser yenn ci ay disposition ci noonu daal dinañu taxawal ab commission boo xam ne moo nar a amal liggéey bi jëm ci wàllum aspect technique bi nga xam ne kon dañu koy daal di ak itam proposition décision yi nga xam ne ci kaw bu fekkente ne jàll na mën nañu jàpp ne kon kii di Karim sa wadd ak Khalifa Babacar Sall mën nañoo bokk ci yooyu lépp jongante ci jamono jot ci ñoom itam daal dinañu wax ci lu ñel wàllum lii di grâce présidentielle bi ndax gis nañu ne mënta dindi benn yoon condamnation bi nga xam ne moo xes a nekk ci casier judiciaire u candidat bi loolee yépp dinañ ko daal di waxtaane ni ki tey ci talaata ji leneen it lu ñu nar a waxtaane ba tey mooy lu ñel wàllum reforme bi jëm ci article L28 naka noonu itam commission technique bi dinañu daal di waxtaanee lu ñel ñetteelub candidature njiitu réew mi Macky Sall ci noonee yenn ci acteur politique bokk na ci ñi nga xam ne ñoo fa teewal opposition bi ak ñi ñu duppee non aligné daal dinañu fësal seen ñàkk ànd kon jëm ci candidat wu njiitu réew mi Macky Sall ci atum 2024 mu daal di wute lool ak li nga xam ne kon moom mooy gis-gisu majorité présidentielle bi ak ñenn kon ci ñoo xam ne dañoo bokk ci société société civile bi te ba ñu gisee ne daal dañoo war a bàyyi conseil constitutionnel mi nga xam ne moo yore kàddu gu mujj bi ngir mën a àtte ci lu ñu mel mu daal di ci wax beneen poñ bu ñu fa a waxtaanee mu ñel wàllum lii di soppite jëm ci article 87 bu constitution bi ñel wàllum tas lii di assemblée nationale ci ba ñenn ñi jàppee ne kon article boobee solo bi bëriwul article bi ci li mu wax mooy tas assemblée nationale mun nañ ko amal ci ñaari at yu njëkk yi pôle majorité bi nag la mu jàpp mooy daal faw ñu xoolaat ko ngir mën a fexe rek ba mën a permettre njiitu réew mi mu mën a tas assemblée nationale saa su ko neexee rawatina sax ci wàllum blocage bu fa naree am ci kaw bu taataane xalaatu premier ministre ak ki nga xam ne moom mooy président wu assemblée nationale